Euh, Ousmane Sonko lan la lay inspiré. <laughs> donc kooku moom gisuma lu moom a inspiré. inspiré wu la dara non non non mënuma roy dara ci moom nit kuy victimiser wu mënuma roy dara ci moom non kooku du ma moom. bu dee nga woy trompeur. parce que dafay naxe. dafa imposer boppam askan wi si naxe mbapatul jaarul fenn. impôt domaine la doon liggéey ñu jékki-jékki dàq ko mu ñëw victimiser wu fii dàq nañu ay nit ñu bëri te victimiser wuñu est-ce que mhm. su nekkoon nit koo xamante ni dafay tromper ay nit wala dafay nax ay nit euh, cette cette cette jeunesse là une mhm. partie de cette jeunesse du ma ne toute la jeunesse parce que am nañu àndut ak moom mhm. mais bu doon ce que cette cette jeunesse là dinañ ko topp comme niñ koy toppee ni ba di di di wàcc moom ba mu jaral leen ñu jël seen bakkan di ko tayle xam nga mariirandoo dafa bëri si Sénégal ma réerandoo ñu bëri tey dañ ko topp xamuñu ko xamuñu ko Ousmane Sonko am na ñoo xam ne topp nañ ko xamuñ sax fu mu dëkk. yow xam nga. non mais sama morom la mën naa ne bu ma magee ay ñeent at la may magee dama ko jàng xam mooy kan xam mooy nit ki nga xam ne dafa ne woon dafa bëgg changer réew mi lu mu waxoon démb ak li mu wax tey boo ko xoolee c'est diamétralement opposé. Mhm. boo ko xoolee di nga xam ne Ousmane Sonko bi ak bi ñu xamoon démb bokkul. parce que koo xam ne ñëw na nee na ñi fi yoroon réew mi ñi nga xamante ni ca Senghor ba ci Abdou Diouf ba ci Abdoulaye Wade yëpp ku leen faatoon dagan na parce que ñoo yàq Sénégal kooku mooy ëlbateeku tey di ànd ak ñooñu mooy waa système bi kooku gëmut lu muy wax. d'accord ñu demaat ci biir gis mu doon tuumaal ay gor ay doomu jàmbur tuuma yoo xam ne ba léegi andi preuve kooku du sama royukaay.